Ismaïla Dione ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay monsieur Mbemba. yow responsable communal nga AFP ca noto Diobass bokk nga itam mhm. ca alliance nationale des cadres de l'AFP. Mhm. lan mooy sa xalaat ci dialogue bi nga xam ni président de la république woote na ko dialogue bi itam jur coow lu bari. waaw euh, comme ni ma ko waxee ci nasaraan maanaam sama euh, gis-gis ci dialogue bi mooy gis-gisu sama parti AFP. ndax euh, bi vraiment euh, yii yëpp wax ji bare AFP dafa woote li ñuy wax sp e wala bureau politique maanaam ñu waxtaan ñu génne communiqué boo xam ne loolu moo déterminer position képp koo xam ne bokk na ci biir AFP te position boobu mooy ñu ngi encouragé ñëpp ñu wuy ji ci diisoo bi ci dialogue bi ndaxte lépp loo gis lu ñu nar a def surtout lu mel ni comme élection bi ak contexte bi ñu nekk je pense que kaay ñu def ko bu nekk kaay ñu waxtaane ko bi moo ko war a jiitu kon loolu dañuy rafetlu loolu di ñaax ñëpp ñi nga xam ne aussi bëgg nañ jàmm ci réew mi bëgg nañ vraiment réew mi continuer di am way bi mu doon am vraiment ñu mën a wuyu dialogue bi ndaxte comme li ñuy wax le génie sénégalais moo nekk ni vraiment Sénégal quel que soit les problèmes dañuy toog toujours waxtaan trouver ay solution vraiment mën a avancer ba nga xam ne loolu moo taxoon ñëpp jël Sénégal comme royukaay ci biir Afrique waaye aussi ci biir àdduna kon ñu ngi ñëpp vraiment ñu ci dialogue bi te aussi may fàttali bi nga xam ne woote nañ ko démb Ismaïla dafa mel ni dafa bëri coow ñu bëri nee nañ duñ ca dem duñ ca teew ndax jàpp nañ ni dialogue bi amul sens ndax bu fekkee ni ay candidats yi nga xam ni jàpp nañ leen conseil constitutionnel jàpp na ni ñi ñoo war a dem ñu boole leen ak spolier yi kon dañuy jàpp ni waxtaan mënu fa am. man de du ma sax wax ni candidat bi wala parti politique bi damay fàttali ni dialogue boo xam ne dafa war a wax ci wàllu élection présidentielle amul sénégalais bu mu concerné wul ça veut dire que amul ay acteurs yoo xam ne ñii rek ñoo ca war a dem wala ñii rek la concerné ndax damay dégg ci wax ñenn ñi di jàpp ni maanaam candidat yi wala ñi nga xam ne ñoo jàll ñooñu ñoo war a dem pour waxtaan damay fàttali ni élection présidentielle du moomeelu parti du moomeelu coalition du moomeelu candidat du moomeelu kenn moomeelu askan la kon askan woowu ñoo war a diisoo mooy niro rek yow nga am examen nga ne candidat yi ci boppam ñoom ñoo war a décider ci vraiment kañ lañ koy organiser ak nan lañ koy organiser déedéet man dama jàpp ni yëpp ñëpp la ñëpp ñëpp la ku nekk da ci war a euh, nekk sotti sa xalaat surtout ñi nga xam ne bëgg nañ réew mi dal bëgg nañ réew mi am jàmm bëgg nañ réew mi génn ci li nga xam ne ci la nekk kon loolu bu amee ñu ñëw vraiment waxtaan ñoom ni tënk foofu mooy doon loo xam ne xëy na moom mooy continuer mais dama jàpp ni ku conscient vraiment koo xam ne daal bëgg nga daal réew mi génn ci lii mu nekk ah jàpp naa ne di nga dem wuyu ji ci dialogue bi ndax dialogue bi du yëfu kenn yëfu Sénégal la te Sénégal ñëw ñor doo xaar ñu ñaax la ci nga dem ci yëfu Sénégal kon ñi demul nañ jàpp ni ah dañu opté bañ a dem waaye ñi dem aussi nañu doy looloo xam ne moom dinañ ko wax foofu. léegi lan ngay xaar ci dialogue bi nga xam ne woote nañ ko. man de euh, li may xaar ci lépp li nga xam ne tey ñu ngi koy wax ci acteur yëpp moo ñu fexe ba dal am ci Sénégal lii dal di amee mooy ñu def loo xam ne xëy na dina méngoo ak li ñëpp jàpp ne nii la. kon loolu dafa nekk loo xam ne du yëfu parti du yëfu camp du yëfu coalition yëfu ñëpp la loolu moo tax ma jàpp ni lu nit ñi gën a bari surtout seen gis gën a wuute li ñuy jël foofu ci dogal nekk di nekk loo xam ne maanaam dina dina dina maanaam euh, méngu ak bëgg ku nekk kon loolu moo tax man ma jàpp ni lu ñu war a xaar ci dialogue bi ak ci bépp waxtaan bu ñuy yëkkati tey ci Sénégal ak initiative dafa war a nekk li dalal réew mi li jëmale réew mi kanam loo xam ne dina tax ñu dem ci ay élection ci jàmm ci war a gagné gagné ndax damay fàttali ni aussi Sénégal moo nekk ci kaw ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ay acteurs nga nekk candidat wala président wala chef de parti wala leneen taxul nga nekk ci kaw Sénégal Sénégal moo nekk ci kaw ñëpp kon nañu jël Sénégal jiital ko ñu xalaat nan la ñuy def ba Sénégal googu mu bañ a dugg vraiment ci guuta goo xam ne génn ci dina jafe kon loolu daal vraiment mooy li nga xam ne moom lay xaar ci dialogue bi. ci loolu sax yow dafa mel ni jaar nga ci ab tribune joxe fukki misaal yi nga xam ni fa lañ war a mën a jaar ngir fal ab président de la république. oui waaw parce que dama gis ni euh, lii bu continuer ak situation bi ak wax yi nu mu yëkkatee dafa mel ni bu ñu moytuwul rek ñu def njuumte gu rëy a rëy goo xam ne day dem ba nit ñi naan d'accord naa wala d'accorduma ci li ñuy d'accord sax duñ ko xam mais dañuy jàpp ni bu dee d'accorduma ci benn ci fukk yi diw def maanaam lii nii xëy na euh, damay jàpp ni rek d'accorduma loolu moo tax ñu jàpp ni pour fal lu toll ni njiitum réew dafa war a am mandarga yoo xam ne nit ki ñuy fal war na ko am muy d'abord nga am li ñuy wax programme projet politique vraiment nga xam ne Euh, boo jëlee lu mel ni plan Sénégal émergent wala nga jël vision deux mille cinquante fële ca Rwanda loolu dafa nekk ay programme yoo xam ne maanaam ñu ngi génne ay résultats ñëpp di ci teg seen gët li nga xam ne mooy expérience maanaam vécu ndax boo bëggee jiite ab réew lu toll ni réew boo amul jaar-jaar yoo xam ne wone na ni yow mii am nga expérience gi am nga mat gi am nga dayo gi loolu bu ñu la joxee réew loolu mooy vraiment sànq réew moomu li nga xam ne mooy autorité ndax autorité euh, mënoo gis nit rek nga jàpp ni am na autorité waaye li ñuy xaar ci ku mën a incarner autorité état boo ko gisee ci doxam ci jaar-jaaram ci lépp xëy na mën nga jàpp ni kii nii kat wax dëgg yàlla mën na am autorité bi nga xam ne buñ ko joxoon mën na incarner l'unité nationale li nga xam ne nag moom la tubaab di wax étoffe ak euh, stature d'un président maanaam loolu du loo xam ne nit mën na ci duut baaraam ne lii la waaye da gis nit ci doxalinam ci xalaatam ci waxam ci jaar-jaaram nga jàpp ni kii kat war na méngoo koo xam ne war na mën a jàpp réew te loolu ku xool sa akulaay taalaa rek boo gisee nit surtout ñuy xëccoo réew mi mën nga ne kii kat bu dee dindi nañu mer dindi nañ parparloo am na ñoo xam ne ñii war nañ mën a yor réew te loolu je pense que mooy li nga xam ne euh, moom la ñu war a def. charisme également wax nañu ko parce que gis nga ab jiitu réew. Hmm. du caaxaan koo xam ne li ngay def. da nga war a fexe partenaires internationaux yi ànd ci nga convaincre leen ñu ñëw li ñu war a def sa réew ñu def ko sa askan xam li nga nar ba ñu jàppale la ci kooku da nga war a am charisme da nga war a mën a wax da nga war a mën a jëf nit ñi d'accord loo def nit ñi jàpp ni lii nii kat wax dëgg yàlla méngoo na ak li ñu xalaat. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne wax nañu ko vraiment ci article bi nga xam ne publier nañ ko parce que élection présidentielle dafa am solo ci ab réew. surtout ci Sénégal gii nga xam ne moom la ñu nekk. fukki candidat ak juróom-benn ñoom daanaka déposé nañ ab recours ca conseil constitutionnel alors lan moo ci sa xalaat. waaw man de euh, damay nangu euh, ci démocratie boo nekkee ci réew moo xam ne am na démocratie ku nekk boo jàppee ni yow dañu salfaañe li nga xam ne mooy say àq ak say yeleef li nga xalaat ni yoon may na la ko nga jëfandikoo ko ba mu jeex ndax gis nañ ni xëy na loi bi ñu jëloon ak euh, li nga xam ne mooy décret bi président jëloon. ndax élection yi defe naa ki nga xam ne mooy conseil constitutionnel bi amee ay recours moom jël na ci ay dogal président en en démocrate vraiment mu nangu loolu ak euh, vraiment jëfe ko aussi ndaxte conseil constitutionnel waxoon na na nit ñi waxtaan moom loolu je pense loolu la commencé euh, démb ak tey kon loolu noonu nekk na mbir yoo xam ne je pense que daal ñëpp noonu la ñu war a doxale nangu dogal yi gannaaw boo wóoloo kooku ba dem fa vraiment pour euh, diis li nga xam ne mooy sa ay mébét lu ci génn da nga ko war a nangu beneen bi également mooy ñeneen ñëpp ñi nga xam ne dañu nekk ay acteurs jàpp ne xëy na dañu war a jël yeneen initiative pour maanaam manifester seen naqar wala seen droit man loolu dama jàpp ni ku ci nekk rek loo ciy mënti def tam war nga mën a am conscience maanaam am xel ni maanaam li ngay def euh, suba bu ci lordee am muy Sénégal muy euh, njabootu Sénégal de manière générale dañ ci am responsabilité boo xam ne de historique ndaxte gannaaw euh, coow li yëpp dañu war a jël Sénégal teg ko ci kaw ndax Sénégal moo nekk ci kaw du parti du coalition du candidat du président Sénégal moo nekk ci kaw yépp kon loolu nañ koy jiital ci lépp li ñuy def loolu daal mooy li nga xam ne man euh, jàpp naa ko ci ñooñu nga wax ni déposé nañ ay recours mu nekk seen ay droit nag. junj nga ko dafa mel ni itam association bi nga xam ne moo ëmb commerçant yi nee nañ ñi ki tey ñoom ville morte la ñuy woote maanaam benn suñuy ubbi benn ci seen ay magasin dañuy ñaxtu itam li nga xam ne moo jëm ci report élection présidentielle li ni mel mën naam ay njeexintal de. man de jàpp naa ni. am na secteur yoo xam ne wala am na activité yoo xam ne kenn waru ko jël ne yet. pour di ko politiquer wala di ko xeexee ci politique loolu nag sama xalaatu bopp la. Mhm. ndax dama jàpp ne dafa am yoo xam ne maanaam dafa am solo am solo goo xam ne dafa ëpp xëcco yi am ci wàllu àdduna ndax loolu ci dund la jokk dafa nekk loo xam ne c'est vital comme li ñuy wax pour un pays donc am na mbir yoo xam ne nag ku nekk na nga assumer sa ay responsabilités devant l'histoire devant les Sénégalais mais devant ta conscience parce que aussi foofu la réew mi toll du ñii li ñuy wax wala sama camp lu mu jàpp ni lii wala xeexoo bi man du loolu moo may engagé man damay attewu ci sama conscience bu ma jàppee ni lii nii bu ma ko defee lor gi xëy na bu doon damay xeex ak nit moom sax xëy na lu ko ci lor maanaam du bari ñeneen ngay lor je pense que loolu noonu ku nekk war nga ci xalaat euh, ba nga xam ne jëf bi ngay jëf ak initiative bi ngay jël vraiment nga jël Sénégal ak sénégal yi teg leen ci digg bi ba nga xam ne lépp looy def rek. di ko def ak conséquence di ko def également ak conscience. coow li bari na lool ci seen coalition Benno Bokk Yaakaar nga bokk Amadou Ba mooy seen candidat divergence donc nemmeeku nañ ko ci coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw xam nga ànd moom gu nekk surtout lu toll ni président de la république xëccoo président de la république njiitu réew maanaam day am toujours coow ndax damay fàttali ni avant ñuy yegg fii am na ñu nekkoon ci Benno bi dañu génn ñi nekk candidat ñi dem feneen. am ñu jóge foneen ñëw ci bennoo bi kon maanaam am na loo xam ne coow mënul ñàkk waaye li nga xam ne moo nekk lu wër te wóor mooy président de la république ci li ñu for ci li mu wax ak li ñu for ci leaderu bennoo yi wax ci conférence de presse yu ñu def mooy que ni Amadou Ba mooy sunu candidat moom la ñuy jàppale moom la ñuy woo njaboot bi yépp ñu jàppale ko maintenant nag nit mën ngaa nekk fenn nga nga bañ a d'accord ci benn mbir ndaxte ñaan ñi may dégg ñu bari xëy na mën nga ñàkk d'accord ci doxalin mën nga ñàkk d'accord ci nangam waaye yooyu yëpp xëy na bu demee ba daje maanaam euh, retrouvaille euh, ñëpp mën na am ba nga xam ne baat yi ñuy dégg ñu woroo xëy na ak li ñu li ñu waroon a dégg maanaam yooyu yëpp mën na mën nañ ko bañ a déggati ndaxte dama jàpp ni boo xoolee coalition opposition comme pouvoir foo ci laal rek am na ay coow politique nag ak lu mu ni président présidentielle euh, élection présidentielle du moins moo demee noonu kon loolu nañ ko nangu te jàpp ni ay yëfu politique la au niveau de d'une coalition donnée n'est-ce pas jàpp naa ni daal ñi nga xam ne ñoo jiite parti yi ñi nga xam ne tey ñoo yor dogal yi ci ñi nànk benno bi ñëpp bu ñu àndee wax ni Amadou Ba la jàpp naa ni kenn warul théoriser benn problème boo xam ne daanaka ça n'existe que dans l'imagination voilà donc euh, loolu daal dañuy doylu li nga xam ne président de la république wax na ko li nga xam ne leader yi wax nañ ko ñu jëfe loolu kon daal loolu laa amoon li ma ciy wax ci loolu. ñu ngi wax décrispation espace public bi ñu ngi wax itam mbirum amnistie lan moo ci position wala xalaatu Ismaïla Dione. man sama xalaat mooy. nit ku nekk ci àdduna comme ni ko loi di waxee. maanaam détention dafa war a nekk exception. et que liberté moo war a nekk règle. nit ku nekk nit ku nite la wax de amul koo xam ne dinga nga yéene nit vraiment li nga xam ne mooy liberté mu ñàkk ko kon tey ak nu mu mënti demee boo gisee euh, comme ni nga ko waxee décrypation boobu noonu commencé ci espace public bi ba nga xam ne ñenn ñu jàppoon waxuma maanaam li ñu def ak lu ñu deful mais ku ñu jàpp rek ñu bàyyi la yow en tant que nit boo nitee rek da nga war a sant ci loolu ndax kaso jombul kenn kenn waru ko yéene kenn. te dañuy wax sax yéene néeg la kon kenn warul jàpp ni kii nii génn na wala warul am polémique te nañu euh, wóolu ñi nga xam ne ñoo yor wàllu wàllu justice wàllu yoon ci réew mi ndax ñoom ñooñu am nañ li ñu xam loo xam ne ñun xamuñu ko kon dogal yi ñuy jël nañ ci ànd buñ ci àndee nag dina yombal lu bari kon loolu daal vraiment amuñu lu dul ah di ko constater amuñ ci benn objection nag waaw donte comme li ma wax rek ñu am élément yëpp ndaxte yoon ay décision am ay enquête am lépp li muy def du loo xam ne day ne fàng ci mbedd mi nit ñi di ko gis kon lépp lu ñu def dañ ko war a doyloo te jàpp ni lii nii kat mën na contribuer maanaam mën na euh, jouer rôle bu mag ci vraiment Sénégal gën a dal Sénégal gën a euh, am jàmm ba nga xam ne xëy na xataraayu bëri bi mën naa wàññeeku man loolu daal laa jàpp ni ah vraiment loolu amuñ ci daal loo xam ne daal euh, objection la ci. Ismaïla Dione ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax yow responsable communal nga AFP ca noto Diobass bokk nga itam ca alliance nationale cadre yu AFP. cadre yu AFP. cadre